نعمة ربك suñu ci tuddee Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy jiite liggéey bi te jot ndigal li ñu di ko jox nuyoo bu sell mu joxal ñëpp ko Serigne Mountakha xalifa général des mourides mi nga xam ne ñu ngi fii ci biir këram lañ nekk ci saal bi di waxtaan waxtaan yi di ci teg sëriñ Abibou Serigne Abibou Mbacke bu Serigne Fall mi ak Serigne Abdoul Ahad ak sëriñ Mamour mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam ak Serigne Youssou Diop mi nga xam ne moo nekk ànd ci Hizbut Tarqiyyah te ànd ak mbooloom ak mboolem taalibe yi fi teew yëpp ak mboolem kilifa yi nga xam ne tudduma seeni tur te ñu ngi fi teew ma di leen nuyu di di leen jox rek. am nuyoo bu jóge ci sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo waral ma toog fii di wax ci di te am ci moom ndigalam mu yebal ma ci sëriñ bi ne ma lu xew lu mel nii bu xewee na dem ci sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadir wax moom dem ci sëriñ bi leeral ko ko ndigal loo ci jële ngeen jëfe ko ñu di la xamal ne rek la suñu sëriñ bi sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxoon ndigal moom xel mu rafet jëmu ci te ñun ci ndigal rek lañuy dox di massawu nag mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi te mbir mi dal ci seen kaw ndax booy massawu man nga ne dëkk bépp ngay massawu ndax lu mel nii bu xewaa sax dañ naan quartier sàngam ak barab sàngam la gën a méttee waaye tey mbir mi fépp la méttee gannaaw fépp la méttee nag démb ba xewee ci suba ba nëgë ni ñu ngi ci waxtaan ak Serigne Bass mi ak gouvernement bi di ci diisoo ak sëriñ bi di ko yëgal li xew mu di ñu wax liñ liñ war a def ba tey jii nag sëriñ Bass mi woote ñu ne ñëw leen fii ci kër sëriñ bi ma jottali leen ndigal li fekk dem ba léegi ñu ngi ci xalaat ak conseil municipal bi ak bureau bi nga xam ne ñii ku nekk gis na démb bi mu xewee ba ndëgë ni membre bureau municipal bi sëriñ Issa mii moom sëriñ Moussa Bassirou sëriñ Moutada Lo sëriñ am Mbacke moom am Moustapha Massam Babacar Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne ñooy bureau municipal bi ñi nga ànd ak ñoom dugg nañ dëkk bi barab yu bare bari teg nañ fa suñ tànk xool la fa xew saafu anteeg nit ña xam li xew ndax loolu la ñu jiitale teg ñu ci kanam dëkk bi ñuy rend lu xew ñu rend compte ndigal luñ jot jëfe ko loolu rek lañ fi nekk ndax la sëriñ Abdoulaye waxoon ndigal moom xel mu rafet jëmu ca te ndigal rek la ñuy déglu gannaaw nag bu yàlla dogalee ñuy ñëw ci sëñ bi waxtaan ak moom doon ko laaj nan la ñuy def gannaaw bu ñu jotee ndigal li fekk moom teg na ñëw mi ngi ci pexe yu mag a mag a mag ak yéene ju rëy rëy rëy mu ne ma nagal sëñ Basiiru Mbàkke mi ngi fiy ñëw léegi bu sëlmalee tusubaar day ñëw fekk bi muy ñëw bi ñuy ñëw ñi ngi nodd ñu toog ba sëñ ñëw mu waxtaan ak moom ba noppi wooñu nañu ah am ngeen digal ci def lii loolu moo tax commune bi génne na 60 million war cee jënd 100 tonnes ceeb ak mille bi bidons de vingt litres yooyu diw muy 60 million mu war ko boolee ci ak yii nga xam ne moom la sëriñ bi eh, yëkkati di ko dimbalee nit ñi ñu jotaan nag leneen digal muy ndigal lii mooy na ngeen ko ànd ak Touba ci kanam ak isbu tarxe yi ak commune bi ngeen def benn commission boo xam ne yéen a koy saytu loolu nag ñu di ci sant yàlla sunu borom tabaaraka wa di ci sant ñi nga xam ne ànd nañ kook ñoom ndax mooy li ma doon wax rek biñ ñu ne koor gi des na fukki fan ak juróom ñuy wu um koor dëkk bi am jafe-jafe ndox lool defe naa ne sëñ Mamour Mbacke mi ngi nii toog biñ leen wooyee ak sëñ Abdou Fara muy Touba ci kanam woo Hizbut bu yi woo mboolem acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dëkk bi maanaam ne leen li ma leen doon wax rek mooy commune bi de dafa noppi ci tàllal loxom ci képp koo xam ne bëgg nga lu baax te yaa ngi yëngu jëm ci dëkk bi ànd ñu fas yéene ko ànd ak yow loolu bi ñu ko defee defe naa ne biñ dajee ca jafe-jafey forage yi ñu amoon jafe-jafey pomp ak i paan biñ ñun ñëpp biñ ko àndee bi ñuy laata am ñaar fukki fan defe naa ne am nañ solution bu wér a wér ci forage yi loola nag laa doon ñaan rek di tàllaloon loxo mboolem ñi nga xam ne ay acteurs lañ yuy yëngu ci dëkk bi te bëgg lu baax te bokk luñ luñ bëgg ndax ñun ñëpp defar rek lañ bëgg te kenn rek mënul def dara kon bu ñun ñëpp buñ àndee yaakaar naa ne songu lenn luñ songu ñu ko daan waxantuma naa rek bi ñu ci amee ndigal kon tey bu sëriñ bi wootee boole ñu ñun ñëpp ne nañu ànd yëkkati lu toll di jëf ji ma yëkkati joxe ko ah commune bi teg ci lii Touba ci kanam nekk ci Hizbut Tarqiyyah nekk ci yaakaar naa ne loolu mooy doxe doxinu taalibe te fas yéene nañ ko doxe te fas yéene ko rafetal te fas yéene ko wéral loolu rek mooy li nga xam ne moom laa ne woon danaa ko wax ci turu conseil municipal bi ci turu bureau bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di masawu bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ci am nañ ci ay jafe-jafe waaye di jaale ñi nga xam ne bakkan yi nga xam ne looru na ci ndax ñaari bakkan looru nañ ci démb tey jii am na beneen koo xam ne nii li ma doon wax ci presse bi na ngeen nit ñi te ci courant bi ak ndox mi ndax fu ndox taa te courant ne fa mën na indi jafe-jafe tey jii ki nga xam ne suñ borom dogal na mu nelaw mu mu faatu ci ci loolu la def dafa dugg ci ndox mi ci kër gi nekk coupé wuñ courant bi prise bi jël na kur jël na ndox bi mu jëlee mu maas ndox mi ci la dox ci la daanoo ba ba ñàkk ci ba kanam léegi nii mu ñetteelu nit yoo xam ne seen bakkan dem na ci kon nag ñuy continuer rek di ñaax presse bi di leen ñaan ndimbal di leen soññ ñu sensibiliser nit ñi ci loolu nañuy sensibiliser nit ñi ci poto yi nga xam ne nit ñi nañ koy nañ koy dànd buñ ci wéeru waaye ndox yi nga xam ne dafa taa aussi ñu di ko moytu ndax xamuñ fu ci courant toll te kër yi aussi ñu ñaax leen ne képp kër goo xam ne nii ndox mi jóg na ba romb prise yi bu ñu kuppee courant bi bu ñuy liggéey ci kër ga wala bu ñuy tànk ndox loolu waxoon nañ leen ko démb